salaamualeykum mbokki taalibe yi fi teew su ma nee mbokki taalibe day romb mbokkuk jullit ndax ab taalibe ab murit mooy ku nu tànn ci biirum jullit moo tax ak ab ak taalibe am na lu mu wuutee ku jullit li leen wuutale mooy dangaa doonub jullit wëlbati ko doonub taalibe ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax taalibe yi fi teew yépp di sant yàlla bu baax di julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëmaat ahmad al xadim xaadim rasul cheikhul xadim di delloo njukkal sunu jàmbaari islam ja sayidina wa maulana ila rabbina cheikhina sëriñ Saliou ñaan sunu borom gën a dolli maqaamam yi feeg asamaan saa ngi féete kaw suuf si féete suuf di siyaar bu baax a baax jàmbaaram ji nga xam ni dafa bokk ci ñëm doon junj keroog ba mu mujjee njurul ba mu mujjee njurul daa dikk ci daara ji du fa daan leen nag yoon damaa dab ndax dañ maa tàggee Serigne Moustapha Ceytum Daaru Salaam yoon woowu la mujj ci saayir gone yi naan ko Mbàkke dañ laa nammoon ndekete far ñoom boobu lañ koy mujj gis ci saayir ak seen i bët ci saayir ba mu génnee woon leen ginnaaw xam na ko moo tax mu wëlbati ko ñeewante leen sëñ sëñee sëñ Esooni mii mu yar xam na ni dox ba ci yàgg mu wëlbatiku gestu lu ko jafe la waaye daa daa di taxaw gestu xool leen ba ci yàgg ay ranqañam tuuru mu daan leen waaye sant leen yàlla su ngeen ma gis tut ak bët li ma leen di jëriñ ji jamono su boobaa la njëriñ jii ëpp daal di leen di junjun leen tey nag am saalihu rek laa waaye ci kanam tuuti ay saalihu laay doon sëñ sëñu Kan mii nag ci saalihu yooyu sëñ saalihu doon junj la ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax bu baax nag ci pakku ngërëmal yàlla bii ngeen teew tey man sama pàkka ngi ne ci ginnaaw keroog ba nu ko sëñ saalihu di jox dan ni sàllaaw de damaa natt pàkke Tuubaa yi gis ni foofu pàkku ngërëmal yàlla la moo tax ma séddi leen ko pàkkum ngërëmal yàlla nag boroomi ngërëmal yàlla rek ka fa mën a sance kon ñoo ngi leen ciy siyaar bu baax xanaa rek di leen ñee bu baax ndax màggal dafa am secret màggal dafa am ay kot waaye code yi du ñëpp ko xam waaye suñu seen mii nag moom bokk na ci ñu ko xam fii ne màggal guddi gi ab barkeeru la waaye màggal gi yor-yor la waxtu wii sañu sëynu la sa jàmbaar ja daan woo sa Abdou Lahad gay ne ko yeesalal ma bopp bi mu wat ko ba mu set mu daal ni nañ dugg ci biir andil ko mbubbum sëñ Tuubaa ma waxtu wii tembe ñoo ndil ko ko sa jàmbaar ji borom nataal bee sol ko génn toog jublu penku ni nan ko may mu àggale bindub alxuraanam bi muy jàng ndax sàllaaw de mooy màggal gi ñëpp may ko waxtu wii la sëñ Saliou daan wax ni nañ ko ubbil buntub man la bul faux génie bi nga xam ni sëñ Saliou nee na fu ngeen dégg ñu naan ko Touba ab ruq la ci waaye foofay Touba keesu man la bul faux génie bee ci biir këram ndax foofu la sañce Touba moo nu ko nettali boppam ñu toog mu ni nu sàllaw de mbaar mii ngeen gis mooy Touba feneen fu ngeen dégg rek ruq la ci Touba daan ni ndax keroot bi sëñ Touba yi sañc Touba ca mag ña doon ko wër fii lañ ko fekk yooli sab ko ba kenn gisul jëmb ji daan ni sàllaw ak a ñemeeg coono daan ni sàllaw feeful fee la toogoon daan ni fii de fi la wanee ni mooy moom sëñ Touba mooy muccal mindeef yëpp waxul nit ñi kese de mindeef yëpp dalli di nag fii de toog na fi ak mbaam àll ak njaay àll di ko dàq ak gaynde dàq ak mbëfër nee na ngir jëfandikoo ko nee na sëñ bi toog nii keroog jotaay ba ku dul moom fekk woo ko ba man ko nettali ca moom sëñ Saliou moo koy nettali keroog laa xam ne ndeke mooy sëñ Tuubaa day làqu sàllaw lii ma leen di nettali ku dul sëriñ Tuubaa fekk wu ko ba man koo nettali moom rek ko xam ca moo koy nettali dalli ni sëñ Tuubaa toog di bind xas dëgg Matlabul Fawzayni looloo waral ñu naan kees gam keesug Matlabul Fawzayni ba muy bind xas dëgg mbaam àll gi dàq mbëfër gi ngir jëfandikoo ko nee na léeg-léeg njaayàll gi gaynde gi daw ba péfati ko mbëfër gi mbëfër gi bépp ci nee na ñuy birti birti ci mbanding mi ci àll bi ñu jékki-jékki nee na ci war wër loo ci biir wër-wër loo bi mbaa àll gi jékki-jékki seen ku tedd mu toog di bind xasida gi mu xam ni sëñ Tuubaa ma nga nee toog te mooy raw kaayub adduna ak alaaxira mu jawale fa moom daw xel yu rëy dikk ba ci sëñ moom mbaa àll gi mu jël ñaari tànki kanam yi wékk ko ci mbaggi sëñ Tuubaa yi gaynde gi xam ni sëñ tubaa mooy rawukaayu àdduna ak alaaxira mu taxaw di xool ba ci yàgg mu gestu ne meññ sëñ tubaa doog a taxaw daa di woo sëñ Mbàkke Buso mu ñëw mu ni ko Mbàkke Buso mu ni ko Mbàkke mu ni ko gaynde gi da doon dàq mbëfër gi ngir jëfandikoo waaye ñoom ñaar de kenn ku ci nekk ah, dagaa yeew ndax mbëfër gi daa xam ni fii la ñuy rawee gaynde gi xam ni fii mooy rawukaay bi moo tax kenn ku ne yeewi sa morom te dootul dajete ba bis penc waaye nii la sëñ tubaay jàmbaar ndax bërti bërti ja li muy bari bari ak poussière ba sëñ bi taxawut juumut jaawulewut ma ne wuute nag keroog ba may dem dugg maa dem bay dugg ci forêt bi oto yëpp taxaw fay seen lumière yi man ne lu xew ñu ni ma gaynde gi tëdd ci digg yoon yi ma ne su fi tëddee nag lu mu mënal camion ñu ne ma sëñ bi xanaa xamoo gaynde fu mu tëdd teggi rek ma ne ndeysaan gaynde de ñun nit ñee koy teggi waaye Ahmadou ma dul nit moom gayndee koy teggi moo tax sëñ Moussa Ka ni ko ku mel ni nit ca nit doom ja mel ni nit ca du nit suusatam ñëwee gënu nit nan ko jaamu ñun ñii di sëñ Bay Jaxate ko dangaa defoon suñu moroom ba mujj ngay suñu borom di ñu xamal suñu borom yàlla nga juy nuru nit waaye la sëñ Bay Jaxate waxoon ñun ñii ànd ak sëñ nu dey te toog ca pàkkum ngërëm bi war nañ koo wax dani am naa lu gën ndey am naa lu gën baay ñu ne ko loo am mu ne am naa ndey ak baay am naa sëriñ bi ndegam ndey ak murit soxnaa ngi xëy di tawat te Bamba mii di gërëm seeni tawat du ma saf ndegam ndey soxnaa ngi xëy di tawat te Bamba mii di gërëm seen tawat du ma saf su bamba mii di gërëm seeni i gërëm di ma saf su bamba mii gërëmul seeni gërëm du ma saf ndegam damay soofa kay sàppaxle ngir ni ma mel kuy wut ngërëm daana soof nit ba mujj mu saf sëñi sëynu am naa lu gën ndey am naa lu gën baay boobu ñun ñii ànd ak sëñ Saliou ñoo ko war a wax damay faral di wax ni baatub dooñu réer duñ la réer maa ngi dégg sikkarkat yi di ko wax waaye koo ko waxal ku dul sëñ Saliou da nga ko koo yéene waxal ko ko waaye jëm jee moo ko waxal boppam sangub sëñ Seynu te ba mu wax it da koo wax publiquement ñëpp dégg làqatu su ma leen jiitoo taxaw nég leen baat boobu ba tey càmbara guñ ko firi su ma leen jiitoo taxaw nég leen sëñ Saliou nee du ma sa dem bàyyinu sa ñëpp laat junjoon na ko murid yee ko déggut su ma demee ba gisatoo ma leen sax sàllaaw damay taxaw nég leen su ma wëlbati koo fekk ngeen wëy nag ma topp fi yéen am naa woyof gi topp fi yéen waaye sàllaaw du ma musa dem bàyyi leen kookoy borom dooñu réer duñ la réer kon nag baatub dooñu réer duñ la réer kooko waxal danga ko koy yéene waaye sëñ Saliou moo ko waxal boppam sàllaaw day lii fi man su ngeen ko fi bàyyee di seeti lu ko gën a lu ko gën lën lënt rek ngeen di dajeel lu wér fii rek daan li bàkkuuma nag waaye ko ànd kurul kii ngi naan dal daa jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla waaye yéen di lëkkale gi soriwul daari ustul maam da ngeen ne ñogg ci samay mbagg ma ne ñogg ci mbaggi xaadim rasul sàllaaw doog damu de te ko ma bokkal sëriñ tubaa xam nga fa ma jëm ca xam nga ne laa mu tuuma ko ci sëñ bi laa jëm te aw ma nii aw ma nii nii laa fa def jëm fa te ko ma bokkal bàyyi naw nga ma tax way kat ba ni damay ja damay way ki jar way samay way du jeex nde moom mooy ki may way Serigne Saliou moo nu neex bu may way ba koy way xalaat jëm ci moom li may wax du jar way sama xol di jeex li saa xol di fas moom la saa xel mënul te lennal ko moo war nde lim am du jeex ma far naa ko yow yaa di koo xam ne nii amoon amoo ndendandoo fenn yaay nday di jeex Serigne Bamba moo wuutu yoon leen ba tey nga wuutal ko jëm moom de semmal ko seex Serigne Saliou jógal jógal bàkku yaay sédd tey dangaa raw ci kuy mbër ca noppen ni meex da ngay nit ku mag nit ca doo nit ci wet li ngay jommaliw nit du ci col gu weex sëñ Saliou ñu doon nit dañuy nit ca yow raw nga nit ba far xam ci aw nit lu xol mënta jeex melay bamba yaa ngi ñu teg bët ci yow ni kuy déglu déglul ku déggul ni meex sëñ Saliou bu nuy jàq kay rek ku teg bët ci yow dangay ngay bég dalal xol yi ngir xol yi féex te liy xew ci aw tiis nga ñuy dolli ngëm mbégum yàlla maa ngi ku lay bañ di féex amul kem bu lay dab ci am yërmande ba ñun ñëpp daw ñëw ku lay wax ba jeex amul kem bu lay dab ci maandoo ko ku dul tontuy tuumaal ci yow rek la jeex amul kenn bu lay def ci njàmbaar guri sañ Saliou ci say tool ngay jommali ku ñuul ak ku weex yow ay bàyyi miskin yi sëñ Saliou yaa si la jëf jirim yaa ngi ci sa ron nga mooy ñëpp péex ñi log tag ñi wog pak ñu néew doole ña ñi lay dékki seen ndab xañoo leen sa ñeex sëñ Seynou xam nga lu ma neex ci sa sang bi nee na bala ngaa ànd ak man am ngërëmal yàlla dama la koy fàggul soo dikkee nag moom dangay ngay dimbali waate waaye wees nga dimbali ñu lay dimbali xam nga lu ko waral Cheikh Mamadou Fadil dafa laaj doomi sëñ Tuubaa yi ku ne million ca jumaa ji booba million bari na de sëñ Saliou Touré bu Thiès moo nu ko nettali nee na keroog moog sëñ Saliou ba ànd nee keroog ba ñu dugg ci biir dëkk bi am na ko nu teel ci kilifa yu mag yi mu ni ko sëñ Saliou man de maa ngi jëm Saloum lijjanti ji saab million bu nu ko mottali am na genn wàll de te bi ma gëstoo it amul kenn koo xam ne ëppale nga ma sëñ borom xel comme muñ dani ko hmm, loolu de bari na waaye sàllaaw ñëpp ay matle sëñ Saliou nee na mu waaxu waaxu mu dëgër nee na keroog ba mu jëm see sëñ Mamadou sëñ Fallou daa jóg tàccu woowe ko tur waaye ma ko daan waaye waaye njool sikkim njool sikkim noonu la ko daan woowe addiye jun dajale yaay ëppale yaay gën a le xam nga lu ma neex si addiye sëñ Saliou ni ko hmm, lu mu mu ni ko soo may jóg si addiye ji nga yore moo naan ma maa ngi jógee ci sëñ Saliou jëm ci sëñ Fallou waaye alal ju lew laa xoolal lu yéeme noonu sa alal loolu la may wax ba mu dafa génne morso bi ci daraa ji ba mu ko tegalee sëñ Fallou fal Fallou di ko këf teg ko ci dund bi ni ko leew na ma ñëw dugal ko dikk ni naa ko waaye dama cee fekk ñetti fas-fas ma yaakaar da nga cee xàjjale million bi waaye ndekete fas-fas bu nekk million la mbakki laa doon laaj doomi sëñ Tuubaa yi waaye ñetti million la ma nga ma laaj sëñ bee kersa gi mu sëgg ñu ko xër ci liggéey liggéeyal ko tedd ki rek Cheikh Mamadou Fadil ni ko am na loo ci jublu soo ko waxee loo tàmbali ci sëñ Tuubaa àggale sa dara du tardé koo àndal du ci koo àndal mu àgg sëñ Saliou ni ko hmm, loolu de jar na wax ko sëñ Fall ni ko jógal wax ko borom dëkk bi nee na nga wax sëñ Saliou jóg daal ni ko million bu njëkk bi dañ maa limaale ci doomi sëñ Tuubaa yi ma joxe saab million sëñ Fallou ni ko ñaareelu million bi nag mu joxoñ bërëb bu sëñ Tuubaa ni ko borom bërëb bee laa ko joxe waaleen sëñ Fallou jóg daal ko a waa yaa ko war a joxe waaleen ndax yaay moom mooy yow ñoom ñaari ñu tekki nag mel ni ñaari yëkk yu ñu ment ci million gum ñetteel bi Cheikh moom du Fallou jekkeeke daal ni ko waaye sëñ Saliou nettil million gum ñetteel bi sëñ Saliou ni ko sàllaaw dama koo bëggoon a nëbb sëñ Fallou ni ko wax ko mu daal ni ko million gum ñetteel bi ndaw ñi nga xam ne duñ fekke ji jamono laa yóbbaale giiw ci addi sëñ Tuubaa ju nangu mooy ñun booba feeñagul jamono sëñ Saliou di ñu yóbbaale géew addi yi sëñ Tuubaa xoolal gi baax xoolal gi mat xoolal gi yiw xoolal gi àgg waaye xam nga loolu lépp lan moo ko ko maye way jur wi ko meññ ni la kenn dootul mel ni moom soxna Fat Jaxate soxna Fat Jaxate doo dégg waykat ba naan askanam ci wàllu ndeyam naa ko tagg naa ci tagg kem li ma xam maam yi seen li nii ku ko am doy nga diine des na loroy maam libaas si laay ndekete maam yi soxna faat jaxate laal na ci la laal njaxate jot ca mbàkke cër yi fari sëñ ma ñaaw mu siiw ma ñu xam kan ma mooy ndijaay ci ndeyam soxna jëng si laay ndeyi maam soxna faati ndey ki may way moo du astamam jaxate bàyyi soxna faat jaxate laal na ci la laal njaxate jot ca mbàkke cër yi fari donc ni sëriñ moo du maam asta man daa wooye maam masata maam yi fonki nii farata jar na gëstu way ki ñu doy sëñu sëynu soxna su musa dikk ci sëñ Tuubaa léemu na la dindi ci yow rëy dindi ci yow diis dindi ci yow mbooleem ayib yuy tax nga mën a doon nga nga mat doomi soxna waaye soxna Fatou Jaxate keroog ba mu dikkee fekk ko Jolof Sëriñ Tuubaa da koo tiim jël loxoom bu tedd ba teg ca mbaggam maam Cerno xool ko ba ci yàgg daal ni ko kii de amul ayib bu ñuy dindi yàllaa ko mottalil boppam mat na sa ku fi bëgg am am ko mu tawloo fa Abdul Xuddus mu dund fukki at ak ñaar làqu mu teg ci Abdul Baaxi mu dund fukki at ak benn làqu mu teg ca soxna Taahiratu Mbàkke Taahiratu dund fukki at ak juróom làqu nit ñu naan soxna Fatou Jaxate de comme am nga dem comme am nga dem sëñ sa sëñ Tuubaa ni leen bàyyi leen jàmbat mi ñoom ñett dañoo mottali ko ji def leen leen daam suñu matee ma jëmm ji dikk ca suñu dikkee toog boobu mi ngi junj sa jàmbaar ji waaye cey 1915 jal sa sin ci arab fajarub ajjuma ca njaari sëñ ma Lamine Diop daga na ànd ak sëriñ Maxtaar Bintaloo donc fekk fekk Cheikhul Khadim te keesug sunu borom ga daan ni ko soxna Faat Jaxate day lañ ni daa yëglu suñ tubaa ni bëri jóg taxaw daan ni yëglu gu mel na ñu ni ko am na leer suñ tubaa ni leen lu doon ñu ni ko góor mu ni kon ki may yàlla diggoon dikk na jóg taxaw sëñ Tuubaa keroog dañuy sëñ ma laamin danaa leen bégal ndax kii ngeen ma wax ñi ma feeñ na jamono ca muy góor moom la ma yàlla doon wax daan leen dinaa leen teral sëñ ma laamin nee na ñu yaakaar ne loolu la ñuy terale sëñ Tuubaa di fecc kaale yi jàng ba xar kanam nga nga xam ne ku dul Seydunaa Muhammad mosoo ko teg bët ba mu daj feeñ waaw Seydunaa Muhammad rek ko gis xar kanamam ba mu daj ak ñoom sëñ ma laamin ñi ko yëgaloon ni ko sëñ Saali feeñ na jamono te Seydunaa Muhammad keroog ba mu ko gisee daa béeg benn laa ilaha illallah araytani sirra rasulullahi wa qala la ilaha illallah ñoom sëñ Malamine nee na ban ban ko tekkee nee na mus gisuñu xamuñu neexutu gis yàlla waaye sëñ Malamine nee na dundaatuma ci kaw suuf lu mel ni gis xar kanamuk sëñ Tuubaa lu neexe ni moom nee na ma gis xar kanam nga mu jib ba daj sikkim ba mu fas ko ñetti fas su ko fecc woon mu jégalaal suuf mu reetaan ba digg jë feeñ nan ko Malamine sant leen yàlla kii de koy dimbali ko àdduna ak laaxira moo lay dimbali ki feeñ tey sëñ Tuubaa gas nab teen ca njaareem bu tudd teenu badar ñeenti at jàpp juróom bënd mag ñi daaneen jàng kaamil dikki di ko ca tifli ndax mu bënn waaye fajar gi sa jàmbaar ji feeñee jamono sëñ Salim mag ñi dañoo dégg tell ci fajar gi ndox may tuuri ci bitin ngir sëñ Salim mi feeñ jamono garab ya dee woon ba wow di meññaat di heure fawaat di amaati xob kees gi leer sëñ Tuubaa di baagante ci biir nan ki ma yàlla diggoon dikk na kooku ku dul soxna Faat Jaxate attunoo ko mu feeñ jamono sëñ ma laami nee na sëñ Tuubaa woo leen ni leen su bis bi delsee saali xala Sayer mbake daa bindu kaamil jox ko ko bind ci ginnaaw Serigne Saliou yàlla na fi yàgg tiwee mu téye kaamil bi ne ko mat na sama tur wi rek nga yàq masque ak lonko nga ko mas te ca njaarim Serigne Touba masque yet la ci defoon la tax mu def ci masque gu tàll lu jub kocc daa bëggul mu jubalool ko waa mu jub jamono moo tax saalixa la as-saalixa la si yu kammilul amal Serigne Touba jëlub kayit am ñu ni ci suuf la ko bind daan ni saalixa sëñ ma Lamine joxe leen ko tur ca gaaw yàlla bég na ci yonent bi bég na ci waa diiwaan ak waa mulk ak waa malakoot bég nañ ci cey bisub ajjuma boobu moo tax sañ Saliou sa sang ba mooy boroom ñetti fajari ajjuma yi moo feeñ jamono ajjuma wuutu sëñ Tuubaa ajjuma dellu aljanna faj ajjuma moo tax nga dégg way kaba naan bisub ajjuma yéeme nde moo def lu ñëpp yéem nde moo jël sëriñ Saliou keroog ñëpp a jooy sañ ma Lamine nee na ko gën a yéem mooy ban diggee ci kees googee keesuk aljanna ga di ko jox tur nee na dañoo dégg kàddu ca kaw asamaan sa mu naan seen borom nee na daa bégti ki ko Serigne tudde lu ngeen ñaan mu defal leen ko ki ko Serigne Touba tudde benn naar daa dikk ni ko xanaa yonentu yàlla Saliou lañ la tudde hmm, du moom de mu ni ko ah Mbàkke kon kun la tudde mu ni ko maag yow a ci yem borom tur wa ko joxe daal moo ko xam ak kam ko jox saaliha bokkut ak saalihu de saaliha mooy juróom ñeen fukki tur yàlla yi ak juróom-ñeent moo tax wér de baat buub sëñ Saliou ci gën a gaaw waaye ay ñetti téeméer ak yooyu ëpp na ñaar baax bul def juróom-ñaar bul def juróom-ñett soo xëyee defal ñaar digg bëccëg ñaar sooy tëdd ñaar barki sëñ Tuubaa mooy lonk gi gën a gaaw man maa la ko wax ñam naa ko barki sëñ Tuubaa ñam naa ko ñam naa ko ndookaa ñam naa ko ngéejaan ñam naa ko xel kom barke borom Tuubaa maa ngi daaneel barki sëñ Tuubaa sëñ ma Lamin nee na bi nu sëñ bi nee saari xala nee na ci kaw jaww ji lañ dégg kàddu gu seen borom nee daa bég ci ki ko sëriñ Tuubaa tudde lu ngeen ñaan mu defal leen sëñ ma Lamine nee na ma ñaan bu bëgg ñaan lu jëm ci waaye daa mel daa mel lu fir sama làmmiñ may ñaanal sëñ Saliou ca tey boobu xam nga lu mu ko wax keroog ab xaalana bi fadlihi saaliha baaxit lana jaada bihi saaliha ab xaau shamsa fi shamahi daarihi yajqulu minhu wajhu kaariha ab xaau makmila lahu hadiyau mubarakan mushashihan faaliha nee na daa dikk ci sëñ Tuubaa sëñ ni ko ma Lamine mu ni ko Mbàkke mu ni ko sa borom nee na li nga ñaan lépp ko wenn xab yu ma ciy nettali ndax temps gàtt yow yàlla suñ demee ba jamono nëx nit ñi gëlëm amatul référence kenn xamatul foo jëm wiiru waay jafe sëriñ jafe ku baax jafe na nga doon sëñ Salim mu doon jantub ngëneel boo xam ni diirub jamono du fi jóge fii chaman yi déeri hii diirub jamono muy dimbali waa jamono moo tax su la laajee kan moo fi dul jog neel sëñ Salim moo tax waay waykat bi mosuta jóg ci suñu biir guddeeg bëccëg biteeki biir sëñ Salim daal làqu waaye moo ngi riir ci xol yi waru na sang yaa dal gaa defal yoonu murit duñ gis mu jàq mbaamu tiir moo tax ma naa cey bile njiit te moom desul ca sang ya mu ñam ma si mënoon na suuf ngërëm gu réy ga ko fuuf wooyof ba daana toog ci suuf ca faa xooloon ca sang ya ñu ne ko kóllëre num ci mel noonu mu ni kóllëre nam ko sàmme woon fonk ko day lu nit la ku ñëpp ràññe woon daa jafe woon ca sang ñu ne ko ak mbokk mu ni ak mbokk it nam ca meloon atten ca lépp raw na xel daan ni naa noppi yàlla mii ko jël moo xam meloon ca sang ya ñu ne ko kon wéyal mu ni naa taxaw sëñ Saliou ku bëgg lim ay melokaan yéen ci moom sa xel mi paan taxoon a jàng alxuraan ba raw ci xeeti sang ya ñu ne ko lu tax mu ni bis ba mu feeñ ñu tuddee ko saaliha ñëpp dégg ko Cheikh Bamba fop ko ràng ko nga nee li ngeen gi sang ya boobee la attanub yenam te mësta ñàkk jëm kanam boo booleeg di topp ay magam boo tooge ngeen gi sang ya bur yàlla fal ko fii samaan muy atti suuf ak asamaan te musta bàkkubul añaan moom semmaloon na sang ya ñu ni ko daana doogu mu ni déedéet duñ gis mu dogu mbaamu xaas ci lenn mbaa di ko kaas te ñu ko mën du seeni maas moo tax mu raw ca sang yi sëñ Seynu ñoo ngi lay siyaar bu baax lii mën nañ koo fanaane ak yow man nag maa ngi lay xamal ne la bi may ñëw léegi ci Cheikh Abdoul Ahatum sëñ Moustapha laa jaar ndax guddi maa ko war a waxtaanal waaye lu rafet la seede ci yow li mu seede ci yow ñett la waaye ñetti yooyu day murit bu ne war nga ko yombul nag sëñ Seynu nga jëm ma ne ko mu ne ma xanaa day dundal yor-yor ma ne ko waaw. mu ma ak a yeewu borom ngërëmal yàlla la moo tax ma ne ko ah Mbàkke mu ni ma waaw waaw làmb tuut de daan ni ma na nga xamit lenn ma ne ko lan mu ni ma ku sëriñ Saliou di liggéey loolu ca moo koy téyel boppam loolu de lu dal xel la moom sëñ Saliou mii kum téyel say tànk yu xam ci ku dawal njaabal doo daanu waa jama xam ke daan toog ca njoowaan nga naan yaa baaxi yaa kaafi picc yi dikk di ko wër di barkeelu ci jëmmam ji nga xam ne nee na daa mel ni sama digg loxo bii békkub suukar ma koy soytoo nu ma soobee laajal kataab bi woon ci géej ga soogi soogi waaw soogi njurul la nekkoon mbënd mii la jaaroon ni moom Espagne rek faw mu wut addee ju muy jox sañ Saliou waaye nee na ban dawee ñetti fan ci géej gi bi ni leen soogi mu ne ko mu ni leen waaj leen daal gaa ngi xar ci aw ma ci pexe nee na gaa yi tàmbali nee na keroog laa xam ni sëñ Fallou soogi nee na keroog laa xam ni sëñ Fallou bari nay soppi sax dañ doon wax sëñ Fallou sëñ Fallou na man maa ngi naan ah sëñ Saliou sëñ Saliou sëñ Saliou waaye nee na damaa jékki-jékki capitaine bi ne gaal gi nag xar na léegi barke borom Tuubaa nee maa ngi seen borom xel comme jàmbaari islam jooy sa suuf mu sol daray kotina dan ko soogi kenn du ma yaakaar am ndox di la mujjee sallaaw soo tàggoo woon doo dem waaye dinaa la dimbali nee na dama nii rek la ma def nee na ma dal ca tefes ga wóor na Seexul Xaddim soogi xëy am dongo la te tur wi laa jaar njurul la la nekkoon donc ngay xam nañ ko te fi ne nii ñu ngi koy fépp lay daw léegi looy wax na leer barke borom Tuubaa ba soo gi wëlbati ko lu mat ay fan dikk kër sëñ Saliou daa dikk sëñ bi ne tey na ngeen ko na ngeen tijji bunt bi kon naan soo gi su dikkee rek tijji leen ko sëñ Saliou yoo xam lépp su njëkk lente woon kenn du am cër barke borom Touba sëñ Fallou nee na ko li tax xëccoo woo dara yow sëñ Saliou da ngaa xam ne li gën lépp say loxo lay bujj ñoom sëñ Ousseynou kan ñii kan moo leen mën a am ku dul sëñ Saliou li gën lépp say loxo lay mujj sëñ Saliou jamono ngi ñëw di nga woote cay soo wootee ku wujuwul ba wooteetoo daal ko man mii sax su ma ko fekk woon wuy ji ca woote ba billaahi sëñ Fallu ko wax sëñ Saliou man mii su ma ko fekk woon wuy ji ca woote ba dama ko fekkee waaye su boobaa su ma fekkee ma làqu yàlla na ma denc fa féeteeg sa kër mooy dégg riirum ñi lay jëfal sëñ Saliou ni ko hmm, noonu lay amee de waaye mënut si liggéey bi matee yàlla naa fi féeteeg sa kër sëñ Fallu ni ko nga féete sama kër ma féete sa kon de suñu diggante moom mooy jéggi siraat ko fa jaar doo ko jéggi moo tax demal jumaa ja tey la màggal mbooloo mépp diggante boobu la ñuy baagante kaamil yaa ngay wàcc kenn mënu faa jaar barke borom Touba foofu la gaa yi gaa yi naan leer ba mel ni foofu lañ koy naane moo tax kenn du sa waaja nag ku ko way tëkkaleel jaay nga ko maako ko wax barke alxuraan billahi foo dugg ci borom cëri yàlla yi xam nañ sa waaja gaa yi sax léegi boo xanteetu noog moom njëkkalanteetu noog moom buux nañ ko ni ko mbàkke yow la yàlla jiital te sëñ Moussa Ka nee nag ku yàlla jiital ku ko jiital jiitu ku koy gannaawal des gannaaw far juutu ko yàlla jay sax ci àddunaam jay leen ko ko mu téeral tey ak ëllëg xam nga sëñ sunu borom kan la jiital sëñ tubaa la jiital waaye magasin ba nga xam ne ci la dencoon mbir ñu jébbal ko ko moom sëñ tubaa ci ndigalal saa borom mu jaari ko ci Seydina Muhammad xam nga kom jox magasin bi borom na tal bii nga àndal magasin rabbul harshi sëriñ saali woo ko yor te koo gis ba yéem la mu yor sëriñ saali woo ko jox kon sëriñ bi yàggal te wér man daal bëgg naa la barki sëñ tubaa te caaxaan yëkkatee tuma nag ndax man mii kat damaa naan ba màndi waaw yàgguma ca daara ja nag waaye am naa fa ñaar fukki at benn de waaw góorgóorlu naa ci alxuraan ji ba far ci tuuti xaside yi nag ci sëñ bi damaa yiwu cëppeeluma kon fi mu ne jaawale jaawale tuuma de ku di maagal li yàlla maagal des na danañ la jiital